taxaw itam fëgg dënam ni ñun parti démocratique sénégalais. Mhm. na nit ñi xam ni ni ñuy wujjee ute naag yeneen parti mhm. yi nga xam ni ñoom li ñuy wujje mhm. xam nga wax jooj daanaka da ngay am kon donc koo koy moomale. Euh, loolu weesu. président Macky euh, président Abdoulaye Wade toujours ci bi muy rencontré commission boobu. ni Sénégal lii suñu chance mooy dañu am démocratie boo xam ni. ku ci nekk sañ ngaa wax lu la neex mhm. sàq lu neex ci réew mi mhm. loolu nag dégg li ñu nemmeeku ci réew mi actuellement waxul mhm. ah si maa ngi maa ngi ñëw ci yow parce que Abdoulaye Wade a dit la chance ko nous avons c'est que chacun peut exprimer non suñu parti la wax waaw waaw mais d'accord seen parti la wax wala mais ci réew mi la wax si Sénégal non non je viendrai parce que man maa maa leen yónnee vidéo bi j'étais là-bas vous m'avez dit non non non dafa wax ni ñun suñu chance suñu parti ñun ku ne maanaam si biir bokkul discours quand il parlait il parlait si réew mi. Euh, d'accord ci kii mais sur donc ça il parlait de l'intérieur du parti. vous allez répondre tout à l'heure madame de ma part. mais ce que j'ai constaté mooy déclaration Ablaye Wade yi ñëpp xam nañ ne am na wenn wàll ci kudde gi gum ko féetale. Mhm. man je considère mhm. compte tenu de chronologie yëpp jóg na la defal noonu yëpp. Mhm. que le parti démocratique sénégalais est embarrassé par deux questions. question bi ci njëkk mooy question troisième mandat. Mhm. parce que nag. d'où la pertinence de la question de Astou de tout à l'heure parce que nag en 2011 dañu uti jiwoon troisième mandat. Mhm. donc actuellement ils peuvent être mal à l'aise par rapport à une troisième candidature du président Macky Sall muy ben benn la deuxième question embarrassante bu fi jàll bu yàggul mooy l'éviction de Mimi Touré de l'Assemblée nationale. Mhm. ñoom ñu ànd ci. bu ni jaadu na. loolu nag warut a bett kenn parce que ñoom dañ ko defoon. c'est ça. contre Moustapha Cissé Lo. ak Mbaye Ndiaye ak Mbaye Ndiaye. c'est ça. Mhm. Mhm. on est constant. dañ lañ ko defoon. Mhm. est-ce que loolu constance la. je viendrai je vous dirai. d'accord dañ ko defoon xam nga. loolu man dama yaakaar ni ñaari question yooyu. moo topp parti démocratique sénégalais ba léegi ba nga xam ni taxawaayam boo ko dee xool. yaa c' est quelque c' est quelque peu flou. c' est flou dem ba yaakaar ni sax est ce que le parti démocratique sénégalais mu ngi koy wax sànq ci kàddoom ne contrôle sax Macky nekk candidat. Hmm. à condition. est que ñoom non non non si dama ni ku may def ordre de priorité. les les les laissez terminer laissez terminer moom après vous allez vous allez répondre vous allez vous allez répondre vous aurez le temps de répondre le temps qu'il a pour analyser ces mais franchement faut pas interpréter. non non non vous aurez le temps de répondre non non non xam nga dama def chronologie des actes posés. nee naa la Macky warta bokk warta bokk mais man su may def priorité de combat. ñaari combat ñu tegal ma ñëpp bokk élimination candidat yi arrêté parce qu'il faut changer ce. cette chose-là il faut qu'on sache madame Diallo s'il vous plaît loolu laa wax wala ñu teg terminer rek après nga ñëw di nga di nga répondre lépp xam nga sama kàddu bugguma day génn waaw ñu interpréter loo xamante ni c'est pas ce que j'ai dit je suis pas j'ai jamais dit que j'étais pour euh, qu'on était pour pour terminer parmi les les les objectifs visés par le F24 ba ñu bañ a bokk mhm. Mhm. mais nekkul contre troisième candidature président Macky Sall rek mhm. waaw lii ngay wax ni moom ngay sàkku waaw c'est également une des missions essentielles de F24 waaw maanaam fexe ba ñu dindi du code électoral l'article vingt neuf et trente bi nga xam ne day tere nit ñi nekk candidat waaw lu tax fekk leen ci loolu lu tax demu leen ànd ak ñoom y a un problème je vais vous dire y a un problème d'incohérence pour man dans la démarche du parti démocratique sénégalais ba finalement boo dee analyser ba analyser sax da nga naan mhm. waa parti démocratique sénégalais est-ce que ñoom mhm. Macky Sall bokk amaat sax une réélection oh. gënalu leen parce que en sachant qu'il va terminer en deux mille vingt neuf gënalu leen beneen candidat bu sokkee ci opposition bi bokk gagné avec potentiellement la possibilité de faire deux mandats ce qui éloignerait encore l'accession du candidat du Parti démocratique sénégalais au pouvoir. La continuité de la grande famille libérale. non non pardon est-ce que vous avez terminé ah non non non quand il may may man. ma dinaa la est-ce que vous avez terminé. elle peut y aller. Euh, mais moi daal j'ai souligné l'incohérence dans les les actes qui ont posé <coughs> chronologique et tout ça. voilà allez. il y euh, Karim mu ngi waxtaan ak Macky. waaw am na ñuy wax ni euh, Sonko mi ngi waxtaan ak Macky pour bañ a dem am na ñu naan. nu mu ci Khalifa Sall mi ngi waxtaan sa c'est c'est wax ay commérage la wax. ay rumeur la quoi. waaw euh, mais je voudrais commencer par euh, euh, Momar merci beaucoup ah c'est c'est votre droit absolu mais dama bëgg a commencer point par point. ok da nga commencer ne dañu ànd ak Yewwi ak. waaw d'accord pour dem ñun ñu beddeeku wax ni dañuy am suñu groupe parlementaire Momar yow intellectuel nga ma admiré la. depuis mm. longtemps. Mm-hmm. dang ñu waroon laaj lan ngeen signé ca njëlbeen parce que journaliste yu bëri sa génération loolu la ñu wax dang leen di gis bu ñu tegee loolu ñoom di dineen am réflexe tontu est-ce que waxante woon nañu bu fekkoon ni dañu ne bu ñu demee dañuy ànd du ñu def intercoalition dañuy def coalition unique. non moi je ne vous reproche pas. non de vous mais... être éloigné pour créer votre groupe. Non, mais, mais c'est un fait. Mais je vous dis qui permet de voir la lecture je vous de la poursuite du PDS. Je vous explique ce voilà, fait. Voilà, très bien. maa ngi koyit yi. voilà li ñu signé. il était pas question que ñu bokk groupe parlementaire bañ ko posé dañ ko wax. ok parce que ñun dañu gëm ni xam nga tey maa ngi koy bind démb sama page Facebook y a qu'au Sénégal qu'on parle d'une opposition damay déglu Macron di wax des oppositions lay wax les journalistes euh, français des oppositions les oppositions foog ñu nangul ñu suñu identité. ni ngeen ko mën a nangulee ñeneen parce que c'est parce que ñun d'accord ñu mais on a le même le droit je euh, Momar pour pousser plus loin la réflexion mmh. on a même le droit de avec l'opposition parce que bokkuñu sinon on serait dans un parti ensemble mmh. on serait ensemble dans une coalition moi il des choses yoo xamante ni pour en venir euh, ci euh, motion de censure bi j'étais pas d'accord donc je viens sur ce point signé wuñu loolu ca njalbeen dañu signé dañu ne ku ne da ngay am ce groupe mm-hmm. parlementaire mm-hmm. ñu d'accord ko tënk ko ci këyit ku ne tey sa kayit donc ñun musuñu ne bu lu ñu lu ñu lu dañu respecté ba tey lu ñu mës a wax ak yeew yi respecté nañ ko bi ñuy investir ma wax la dara loo xam ne xëy na xamu leen ko ñun fépp fu ñu wax ne dañuy investir yeew yi ah. amul benn bu manqué mais ñoom am na euh, set département yoo xam ne investir ñu suñu nit da ngeen ko mës a dégg ñu wax ko toujours pour préserver euh, bañ yenn yi génn am na sept yoo xam ni mm-hmm. euh, dañu waroon dugal waapee dugaluñ ko mais déggu leen ñu pour préserver mhm. euh, euh, jàmm bi mais li ñu signé nag am nañ droit ne ñun ça c'est hors de question parce que on veut avoir notre identité mhm. parce que à l'origine c'était pas facile on avait dit demoon nañ ne mënuñu ànd parce que ñun yàlla nag moo ko def ak suñu parcours nag ak ce qu'on pèse parce que au plus bas de notre forme sans leader ñun on est entre quatre cent cinquante mille et cinq qui peut le faire dans ce pays en tant que pas kenn nañu rax mais le, le local n'avait pas donné ses résultats. Euh, les locales n'avaient pas donné ses résultats du PDS. le P au local on avait 452 000 voix 20 24 euh, maires loolu la ñu am di ñu dem législative am 467 000 voix lu ci yokk xam nga parfois les gens parlent sur les faits euh, allez tout le monde dit ça on répète mais à l'épreuve des chiffres on avait 452 000 voix au local 24 mairies ñu dem législative am 467 donc lu ci yokk ah dix mille voix mm-hmm. donc c'est pour vous dire Momar que souvent les gens juste sont ñun bi ñu ñëwee dafa am yoo xam ne ñun dañ ko bëgg garder suñu mm-hmm. identité ñun duñ ñu cuub parce que nous sommes un grand parti mm-hmm. ñun ñooy cuubaate Ah mais donc awoy ci fulla awoy gis nga la awoy man Ablaye Wade sa li mooy sa leader rek doy na non la pouture est claire dara grand parti sorti les de la <laughs> je vais vous dire pourquoi ma wax la loolu Momar mhm. fii non non non kenn suubu leen waa PDS politologue nga non non non non politologue nga am nga xam nga politique wax ma fii ban parti muy pouvoir muy opposition ah boo xamante ni bu demee élection ak benn benn euh, jàmbur benn euh, allié mhm. kefe Lamine Diallo de moo ñu rax. Mhm. ak benn ali mën na peser 405 leader am nekku fi ñu ngi exil. Euh, son secrétaire général nga xam ne dafa am cap euh, kii boppam électorat boppam ab loolu moom Ablaye waat génnul ñëwul mu dem engranger loolu toogoon deux ans et demi trois ans euh, demul 2019 euh, élection 2017 la gëj a yëngu ñu tëj parti bi ndax Covid. président Wade tëj suñu ay permanence à travers le pays nañu toog leen. ñu xëy xaaral xaaral non j'arrive j'arrive ñu xëy local c'est un parti ñu xëy am loolu man daal ku ko mën. waxi wolof la nga nekk pouvoir nga nekk opposition. mboq mi rek ko mën mboq mi. mborom rek ko mën loolu la yàlla def. parce <laughs> que lekk mboq mi nag fi mu ne nii. c'est pour te dire que <laughs> nous on était d'accord. mais ne pas content. Momar bokk pa euh, bokk. bokk groupe. et on a dit qu'on présenterait un candidat ndax ñun 78 yàlla ko defati. ok te ñu yàgg xeex la ñu commencé am groupe parlementaire. on a mhm. dit que ñun dañuy présenter à de PDS. amul benn fii xoolal 2012 on était combien on était 14 députés dañu présenter candidat. Mhm. vous vous rappelez. Mhm. donc ñun loolu aada la ñun dafa am ay aada yu bokk PDS sañu ñu def leneen. mooy suñu identité mooy suñu ADN. donc ñu dem présenter candidat ñu dem à à l'Assemblée donc loolu dara changé wu ci ñu dem à l'Assemblée nationale motion de censure vous m'avez parlé de la motion de censure quand la motion est venue on en a parlé dañu woo Lamine Thiam dafa woo le président Wade wax ko président Wade ne ko man nekkuma assemblée dem leen ngeen waxtaan ak say député mhm. ngeen xool li ngeen di def mu exposé ko situation bi ne ko on m'a interpellé pour wax ma ni lii man ni leen lii ngeen mënu leen jël tënk seen yëf ba pare ñëw woo ma ne ma ne ñu suba dañu bëgg déposer kii mu ne ko jox leen ñu quand même këyit bi ñu xool mhm. mu ne ko sama ordinateur dama fàtte ordinateur bi permanence mhm. ci guddi gi ñun ni ñu toogee ci suñu panelu kii di ci waxtaan ñu gis euh, la motion circuler ba yegg si suñu panel mhm. su ma juumul honorable Mame Diarra Fam foog naa moo ko dugal ci panel bi ñu gis ko foofu lañ ko gisee muy première chose donc loolu sax c'est pas le plus important bi ñu nee dem leen ngeen waxtaan ñu ñëw mu woote réunion sur les vingt sept euh, les vingt sept députés je pense vingt trois ñoo présent woon ñu ñëw demander tout le monde la parole wax situation bi campé ko lu ñuy def ñiy jël parole si vingt trois yooyu quatre ñoo ni ni que tey ñu ko voté ñëpp ne ñun duñ ko voté mm. parce que ñun du ñu yóbbaale ma mm-hmm. duñ ñu imposer du ñu wan lii wëg lii wax ñu ku ne joxe say kii ñun kenn interféré est-ce dignité boobu fierté boobu du yàq seen ay may ma ma ma ma yeggal moo tax ñu dund ba ñuy def dañuy wane niñ toll ñoom waaw dignité fraternité justice mooy suñu slogan parti démocratique sénégalais dignité fraternité justice mooy suñu slogan mhm. ñu toog bi ñu toogee loolu ñuy waxtaan man personnellement ma ma j'assume ku ma xam-xam ne j'assume dama ni même bu ñu ko teeloon wax du ma voté lii man xam nga kon man maa ngi assumé. Mm-hmm. dama ko voté parce que gëmuma ko. dama gëm ni bu ñu ñëwoon wax ak ñun euh, motion de censure bi on a tellement de choses pour attaquer ce gouvernement là personnellement man li ma wax Amadou Ba am na ko ko ko wax assemblée. Mm-hmm. Mm. dañ maa menacé ba bëccëg ay nit c'est pas de lui hein parce que mm-hmm. lui il est très correct. Ah dañ maa menacé ne ma tiim ponkal di ko yàq li nga ko donc man xam je veux dire la ma ko wax amul opposition. bu ko ko wax mais fala la yem je l'ai dit dans un euh, euh, correctement mais dama leen ni lii da ngeen koy may bunt parce que il peut et ne peut pas ma ni leen lii day des dans l'histoire du Sénégal mmh. on ne peut pas aller cette euh, cette feuille d'une page on ne peut pas aller voter ça ça c'est je l'assume maa ko wax mm-hmm. loolu laa wax ci réunion bi ma ni ko alors que bu ñu waxtaanoon dinañ leen ni mën nañ ko topp euh, euh, ne dañ koy pousse parce que moo tax endettement Sénégal yegg 14 400 milliards mmh. tey jii moo tax tey jii ñu nekk ci situation économique bi bu mu nekkee ministre des finances ñu argumenté ko sur plusieurs pages ma ni ko même moom en terme d' enrichissement illicite bi ñu toppee benn nit muy suñu candidat mhm. mën nañ ko ci topp parce que la loolu laa ko wax ba ma koy wax ne ko yow sa kër ma demeure olive bu jën la waruñu xool foo ko amee mais yooyu yëpp am na yoo xamante ni da nga koy togg danga koy kii parce que day def dans dans trente ans sa doom sa keneen bu demee assemblée mën na xool lan moo fi am ci histoire au Sénégal mhm. ma ne ko mii lii c'est léger moi je ne le voterai pas personnellement man l'argument c'était plus le faux mm -hmm. par conviction ma ne ko gowuma ne war nañ porter porter li je suis pas convaincue mhm. lan moo parce que ma ne ko pourquoi ne peut ou ne pas ne peut pas mm -hmm. c'est-à-dire ñun ma ne leen d'autant que nous on a eu des premiers ministres moment on a eu des premiers ministres qui n'ont jamais fait appel au vote de confiance mhm. alors il faut être constant suñ ko waxee buñ ñuy tontu xam nga lu ñuy wax xam nga lu ñuy tontu ne ñu yéen fii ñaata yoon la seen premier ministre yi ñëw assemblée te mosuñu def vote de confiance ma ko il faut qu'on soit cohérent ma ne ko mais bu ñu indi woon leneen ñu toog waxtaan fi et ça n'a pas marqué on a donné une tribune à Amadou Ba muy sànneeku di fël-fëlaale di ñu xas di ñu jokkanti di ñu di ñu yedd di ñu yàq loo xamante ni kenn xamee wu ko woon Amadou Ba mhm. dañ ko may tribune mu wax lu mu fi def lu mu liggéey lu Macky Sall liggéey ñun opposition bi nii la ñu mel gis nga politique doo sàn sànni bal bi penalty. Mhm. Euh, euh, pour pour ñu dugalal la penalty c' était une erreur. Mhm. moi je reste convaincu. tu le couteau à l' autre. c' est voilà c' était une erreur léegi mu ñëw xaaral ci Mimi Touré. vous dites que euh, on n'a pas voté le budget on n'a pas voté le budget on a eu deux personnes qui ont dit constamment Ousmane Thiam ak mhm. Abdou Dieng Abdou Dieng ñoo ko voté mais ñun on n'a jamais voté le budget Yewwi voté na ay budget yoo xam ne ñun voté wuñ ko mhm. pourquoi ñu ñuy waxal lu lu lu kii ñun voté wuñu budget dañu am ñaari député te ñun bu ñu waxee man am na jour boo xamante ni vote na budget euh, pétrole ñun suñu man ni leen ngeen li ngeen di def xëy na seen yeew yi boobu ñun doxul ci ñun de mhm. ñun Ablaye Wade sax daf ñuy wax lii ñu ne ko monsieur le président on n'est pas convaincu ah ma ne ko ñaar ñooñu dañu joxe seen raison Ousmane Thiam nee na moom day defar budget nee na moom euh, fii la bokk ñii waa waa impôt et domaine. Mhm. mu ne moom pour moom munul bañ a voté budget boo xam ne mooy dem éducation santé gëm-gëm la ci moom. Mhm. Mhm. Abou Dieng nee na moom day voté par force bi budget bi parce que xale yi dañu war a jàngi lool la ko waa Bambey yónnee. c' est sa conviction ñu bàyyee ko ko parti démocratique ça veut tout dire c' la démocratie. voilà donc ñun on n'a pas voté le budget au contraire. am na ay budget yoo xamante yeewi kii na ko voté na ko ñun vote wuñ ko ñun tout le long voté wuñ ko. donc en commission ñiy wax ci biti nit voté wuñu nii lañu nii lañu en commission dañ doon voté hmm? waaw donc ñun dañu dul wax rek euh, moment parce que président Wade daf ñu naan opposition du attaquer opposition da ngeen di hmm. dooleel ki ngeen jàkkaarloo hmm. ñu ñuy attaquer ñuy muñ ñu ñuy traîner dans la boue te keroog ba ñu ñëwee foofu ñu toog di leen recevoir wax nañ leen ko ne leen yéen a ngi seetaan seen ay responsable di ñu attaqué waxu leen aru te pourtant ñun ñii xale bu dee bu ci attaqué opposition dañ lay woo ne bu mu amati parce que contrôle nos troupes ñun de nos on les contrôle <laughs> donc mooma loolu moo am ci kii bi nga ñëw ci Mimi Touré mais on est ñun dañu doon jubilé man dama doon jubilé de lu bi amee biñ génnee Mimi waaw xam nga lu tax mhm. pas autant que génne nañ Mimi mhm. mais dama ne Wade amati na ndam mhm. <laughs> du Macky Sall euh, ak waa APR ñoo taxawoon fii ci diggu Sénégal ni dañ leen singali li ñu def euh, euh, nu mu tudd Cissé Lo ax kii baaxul du dëgg du yoon du hmm. ñoom loolu lañ doon wax hmm. Sénégal journaliste yu bëri topp wee c'est pour combattre Macky Sall pourtant Macky moom waxul woon de dafa teel a démissionné moom ndax xam na ni loolooy règle ñu bindal ñu lu ne léegi même loi boobu ñëw tey Macky Sall utiliser ko waaw kon xanaa joxoon nañ jox nañu raison sur l'histoire hmm. xanaa c'est pas nous qui avons eu raison sur l'histoire ñun bougé wuñu de ñun ba léegi kenn mënuñu jàpp nañu PDS yéen a mué yéen a bougé yéen a truc ñun dañuy toog suñu ay principe hmm. APR ñëw def li ñu li ñu li ñu doon wax démb ñoom ñu koy xeex démb ñëw fekk si ñu ñu ne PDS moo def li wala lële ñun on pouvait pas au vu de l'histoire ak ah, li waral loi boobu Momar Momar 78 19 députés ñuy rocc ba mu des deux ñu dem loolu mooy suñu carrière. waaw mais démission la ñuy wax député bu démissionné. waaw xaaral ma yegg mais je vais venir je vais en mais moo tax ma war a ñëw. maa ngi ñëw ci may ñaar toujours dama lay jox dama lay jox loi euh, bi ak ah, ñun ni ñu ko gisee. ñun mhm. ñun ñii ko porté. indi ko ci dugal ko constitutionnaliser ko yóbbu ko assemblée voté ko xam nga kon ñun ñun ñoo xam suñu esprit loi ñun ñoo xam lan la ñu def ci loi bi donc ñun ñu gëm loolu ndax dañu doon dindi suñu ay député bu ñuy ñëw Ablaye Wade yegg si 2001. mu ni man dama bëgg opposition parlementaire grand seigneur le grand démocrate bu forte bëgguma opposition parlementaire boo xam ni day néew doole moo tax damay dugal ci constitution bi ni que ku nekk ci groupe parla euh, si sa groupe parlementaire mhm. boo démissionné sa parti parce que on l'a vécu tout tout no tout notre parcours boo génnee sa parti euh, da ngay perte sa mandat boo démissionné boo démissionné dangay ngay perte sa mandat député mu dugal ko ci biir euh, loi bi si la defaloon d'ailleurs la loi wàññi groupe parlementaire yi pour permettre à tout le monde d'avoir un groupe parlementaire pour mu am sauf que la démission ne se présume pas. mais je j'en arrive mais mais mais maman laissez-moi finir. je vous dirai pourquoi bi ñu demee en 2009. mais je veux qu'on s'entende sur les termes. ñu démission bu ñu demee 2009 ñu daal di ñëw ñu ne Mbaye Ndiaye Cissé Lo à l'époque Doudou Wade da leen doon topp dafa tegu. tegoon ay nit xam nga père Doudou Wade rek mhm. mu mel dafa tegoon ay nit ñu leen di topp bu ñu duggee réunion APR mu photo filmé bu ñu demee ci kii ba jàpp leen nag boo xam ni fàng la ñu def ci yëfu APR mu daal nag dugal loi boobu c'était le tollé ñu ne waaw ah ñoom démissionné wuñu mais ñun si suñu texte parti si suñu règlement intérieur kii démissionné du ñun ñoo koy wax déedéet parti ba mu bokk moo koy wax ñun parce que ñun suñu texte parti dañu ni dafa am démission de fait xam nga tey ji Momar ñun am na ñaata nit la ñu constaté ñu bokkatuñu PDS ngeen jot communiqué bi ndax dañu dem lu tudd collision avec l'adversaire moo am suñu ay texte hmm. te boo xoolee à APR encore ñoom ñoo ñu triché de ñu doowuñu de ñun fekki ñu fekki wuñu naan ñoo ñu fekk si seen texte parti pratiquement c'est un copier-coller hmm. des textes du règlement intérieur du PDS donc ñoom forcément ils von ils vont avoir les mêmes les mêmes euh, terminologies maanaam collusion avec l'adversaire ñun suñu parti démission de fait lañ ko tuddee xam nga mooy lan Momar Diong munoo toog fii 2 yi nga ne fii nga bokk ñu di liggéey si 2STV ñu xëy suba dootoo ñëwati liggéey ñu gis la ngay dem beneen tele je suppose Sen TV TFM chaque jour dafa def émission ah, El Hadj Ndiaye daal moom day xaar nga naan nga bindi lettre moi kii da lay dàq. day xam ne ni que vous êtes démissionnaire de de truc vous avez laissé votre chaise. Mm. ñun suñu teg sa parti loolu la. te loolu la ñu doxal en 2009. ñu doxal ko en 2009 loi bi ñëw ñu constaté wu. ñu ne ñun mënuñu dellu ginnaaw. Mm-hmm. parce que lii ñoo ko doxaloon démb. Mm-hmm. ñun ke ñii ñëw fekk si ñu. ñoo xamante ni génn nañ man leen man par la suite dama génn ma mama jong dama ni. nañ remboursé xaalis bu ñu fay Mbaye Ndiaye ak Cissé Lo parce que on a eu raison. nañ ko remboursé. nañ nañ ko fay wala créer topp topp ki ko def. Mm. parce que xaalis boobu bu fekkee ñoom d'accord nañ ni loi bi baax na ba exercer ko ci Mimi Touré ba fekk si ñu kon dañoo waruñu woon dédommager ñaar ñooñu. Mhm. na xaalis bi ñëw. mais Mimi bi ñu koy dàq da ngaa kontaan parce que loi bee moo tax. mais yéen bi Mimi non dama kontaan pourquoi. dama ni wàdd amati na la parce que il a une raison sur l'histoire dafa doublement kontaan kay. léegi nga ni. moom bi leen leeree ne. mimi ah, dafa doublement kontaan si si ujub. waaw ah, gis naa dégg wax dégg naa wax. dafa doublement dafa doublement kontaan ci loi bi dal tamit xam naa ne. <laughs> mais eh, eh, man man parce que mimi dafa dafa singili woon na Karim. xam naa loolu mais wax la si euh, Pape Sidi tu sais moi c'est quoi euh, ma personnalité on m'aime comme ça ou pas moi je suis très franche. Mhm. alors là moi on va pas me reprocher. Euh, de d'être pas contente quand il lui arrive quelque chose hein tant que c'est dans la loi hein mhm. tant que dañu wàccuñu loi par exemple suñ ko doon dóor ci mbedd mi wallaahi azim du ma ko seetaan dinaa mhm. jël sama coquette ñëw xeex mhm. mais quand les petits trucs politiques là elle qui a passé son temps à mhm. tuer l'opposition à s'attaquer à l'opposition euh, que ça m'a pas empêché de dormir mais à un moment donné elle voulait rejoindre l'opposition et vous lui avez elle a dit que ah, mais léegi damay dem ngor te ñëwaat parce que personne avec Mimi parce que Mimi on a l'impression <laughs> que PDS ah, moi xam nga lu e Elle vient de te répondre. Elle a dit moi personnellement. Voilà, voilà. <laughs> Ah, le PDS. voilà. Ouais, mais, mais, moi, mais pour beaucoup, je te dis, moi, j'ai dit de personne. Xam lu tax. Non, man tout le monde me connaît ma franchise. Manila. Mhm. bu dee principe yi. billahi nag Momar maa lay wax man du ma du ma wax lu ma gëmut. bu dul woon loi boobu noonu man lu may dox gannaaw réew mi wallahi victoire Ablaye Wade rek a may neex. Mhm. man loo xamante ne Wade histoire day bind ni il a eu raison parce que lu wax bi du léegi.

ah yéen a ngi bëgg loolu du tax tamit ça ça veut pas dire que loolu la lay empêcher nga gis la réalité. mimi dencul làmmiñam ci la règlement de compte bi bi moom wax di wax. à dire de dafa am airu règlement de euh, compte. non non non et là et des airs et ce qui est dama ni. Mhm. loolu man moo ma ñor moo tax ma kontaan. Mhm. ah d'accord maintenant pour le sentiment est-ce que. Euh, personnellement, j'étais cuit. Mais bah, ouais, ouais, ouais j'ai bien <laughs> dormi. <laughs> Elle est honnête. Est la, je considère que c'est léegi wuy leen léegi wuy leen léegi ma yéen ñii seetaan. Hmm. kan mooy parti parti démocratique sénégalais. xanaa may ah. sa misi ngay ngay indi eh, ak ba fu Coro Sarr. ndax. loi bi daf ko interdire mu bindu ci liste électorale Karim gis nañ ko muy bindu bay njàpp. Euh, fa mu bindoo nag du ma juumul ne nañ Turquie la. Hmm. Hmm. am naa jóge na Dubaï dem Turquie. non non